maa ngi leen di sante di am nakhar ak tis ci xibar bi ñu jot legi jot l'ancien ministre des finances fa Ba suñu borom def na li gën ci mom dañuy wax li gën parce que suñu boroom lu mu dogal rek jàpp nañ ne loolu moo war a nekk ñuy ñaan suñu boroom mu teeru ko ci aljana yu gën a kawe Moustapha Ba ci li ñu xam ci moom lu ëpp fanweeri at bokk na ci fonctionnaire yi gën a kawe ci ministère bu économie ak finance bokk nañ ci ñi nga xam ne seen adduna daanaka dañu ko jagleel Sénégal loolu mu doon daw te di ko liggéeyal réewam yàlla na ko suñu borom def yiw ci njabootam njaboot gi mu fi bàyyi yàlla na leen suñu borom teg loxo ñu ngi koy jaal njabootam yépp di am ay kàddu yu ma yëkkati rek ginnaaw bi ñu ma tëjee kaso ca prison bu Tamba pendant fukki fan ak ñaar may dalal xel yi rek di wax ne amul ku gañe jarta taañaañal amul ku ñu gañ justice ci boppam moo def liggéeyam te wane na ne moom mooy li aar suñu réew justice boobu def na li ko war justice boobu def na li nga xam ne mooy limu mu war a def mooy liggéey bi ñu doon xaar ci wàllu justice bi nga xamee ne teggi nañu ma loxo soxlawul ñuy wër wërloo yéen ñi fi toog ku nekk xam ngeen ne kenn dong moo nekk ci ginnaawu jàpp bi ñu ma jàpp li ñu ma yóbbu kaso kenn dong moo fa yóbbu ci ay pexeem kenn dong mooma ma yóbbu kaso ci taxawaayam kenn dong moo ma yóbbu kaso ndax fàtt naa ko kenn dong moo yóbbu kaso ndax lépp lu mu suba ba ngoon jot ma ñëw teggi fen yooyu leeral senegale yi wax leen dëgg-dëgg lamu jublu ci kàddu yamu muy yëkkati kooku le nga xam ne dafay jaawale ndomba tànk yi ñu teg ci boppam parce que dafa nekk premier ministre waaye dellu nekk chef de parti ñaari ndombay tànk yooyu bu la yàlla mayul xel mayu la xalaat wu xóot boo deful ndànk ci nërmeel ngay dëkk

nañu ko defee ca Bakel ni ma jàppe waaye damay wax saa su ne ne bëgg du maasoog fen moo tax journaliste yi ma àndaloon ak délégation sàmm sa kàddu bi ñuy dem Bakel xam nañu laata ñuy dem ni ma ko waxee ci kanamu àttekat bi ne ko xamoon nañu laata ñuy dem mais wa parti Pastef ñu ngi wajj pour dal ci suñu kaw dogatle suñu convoi pare won nañu parce que ñun ku ñu yab dang ñu fekk ñuy nelaw waye tamit xamone nañu ne gendarmerie mi ngi ñuy préparer lolu xamone nañu ko journaliste yi nekkoon ak man ci convoi bi toll woon nañu ci ñaar fukk bi ñu yeggee seme dëkk bu ñuy wax seme Sémé mooy dëkk bi mujj ci région bu Matam Bondji mooy dëkk bi njëkk ci région bu Tambacounda ci département bu Bakel biñu ñu yeggsee Sémé dañu fekk ci brigade bu Sémé ci kaw tali bi ñetti gendarme benn gendarme bi jël téléphonam am di ñu filmer beneen bi ci des yeneen ñaar yi ci des ñëw di ñu nuyu ñun chauffeur yi